bëgg na ay mbokkam bëgg na ay sëram bëgg na ñëpp xëy na yàlla dafa gën rek mais ñëpp xam nañ ne boom baax la yore laa mun wax si baax la ku am taalibe la yaayam ak sama pap ñoo bokk ndey ak baay sama frère la. ok Pape Mor Thiam man ñàkk naa ko ñàkk naa nag naa ko te lépp dañ koy bàyyi si loxo yàlla rek. waaw suñu xarit la ensemble comme famille quoi. waaw ñun ñoo nekk na woon daal man ak frère boobu nga gis mu tudd joxe ko mu koy am Moustapha Ndaw quoi dañ ko agressé ay xale lañ. yoon parce que nit koo xam da ngay liggéey di daan sa doole yàq sa àdduna yi parent say rakk metti na yombul waaw bon ñun dañoo gis affaire bi ci journal bi bon comme ñi ngi ko doon xaar reer ñu xaar ko reer ba sonn ñëwul ñu woo ko jëlul bon ñu ne dañuy dem xooli ndax dinañ ko gis li ci des nañ koy bàyyi ci loxoy police ñoom ñoo koy jël suñu goro comme na suñu doom ji wax ummi si famille bi ñu ngi jaale seen famille waaw métti nañu nag ba ci kanam yàlla xamuñu ko wante ñi ko rey yàlla xam na leen ndax xare na xol ñëpp boobu amuñu jàmm mais nag bay nañu ci loxo yàlla ñaanal nag yàlla na suuf sedd ci yaram yàlla na noppalu ci aljanna bu fi ci te dee bi vraiment dafa metti xam nga deewu koo xam ne nga toog rek feebarul deful dara ñu ne la dee na choc boobu dafa metti waaw te yàlla kenn du xëccoo yàlla kenn mënul xëccoo yàlla yal na ko yàlla xare ajana